duñ def dara lu dul pour ñu woo suñ beneen mbokki imaam borom xam-xam te moom ak imaam si nekk ci ji di liggéey ñu ko xamee ci imaam Sani imaam Sani your pleasure. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa uh, What I want to say, in fact. I want to say something, but today I'm not feeling well, so I don't want to prolong. The, the only thing I want to say, I'm going to thank the organizer of this place, of this program, who I know is our brother Musa Conte. May Almighty Allah bless him. Because he started this program not today. And every time he's doing it, and you see how, how Allah is making his things. The moment you are everything you are making because of Allah, Allah will help you. You are not making it, it is Allah. Once we say it, we are making it because of Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah is standing in, behind you. So the only thing I'm saying that may Almighty Allah let this thing in Islam be always forward. Make this Islam be always forward. May Almighty Allah put Islam on every on every religion. Because Allah Himself said in Quran, there is any, there is no deen He Allah accept as deen Islam. So we also we know. And now look at what we are doing. We are doing Ramadan. We are in the Ramadan. And we all know the greatness of this Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala says, every work Bani Adam, Ibn Adam is doing, is doing for himself. But if he is doing some Ramadan, then that is for him. And he is going to reward the person. Because he said, anybody he making uh, uh, Ramadan, uh, who's making Ramadan? Only the Muslims. And not all the Muslims. The Muslims is a name, it's a religion. But the Mu'minin and Mu'minat, they are doing the Ramadan. There is somebody. He's not doing. He's a Muslim. He's everything. And he said, believe, uh, taqwa, huna, huna, huna. Why? Allah says, if you say, ashhadu an la ilaha illallah, wahadahu la sharika lahu. That is first shahada. Until you say, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam unless you bring the name of Muhammad Rasulullah. Then you are a Muslim. Then you are a Muslim. But not to be a Muslim. Only if you are a Muslim, then you have to you say it with your tongue. It comes from your, your heart, we don't see. But you say it with your tongue, we all hear. But you have to do it with your joints so that everybody sees then we are understand that we are a Muslim. And we are not all here. Everybody is fasting. And you, so, you know this fasting. We know the reward Allah is going to give us. That we live this. Through, upon all that, we come to sit here, not because of everybody, not only because of Allah subhanahu wa ta'ala. And who organized it? It's our brother Muhammad, uh, Musa Kwantu. So may Almighty Allah bless him. And may Almighty Allah bless all of them. Those who got time to come here. May Almighty Allah bless everybody. And all our ulama here, I don't know how I'm going to thank them. Their thank is from Allah subhanahu wa ta'ala. Only Allah is going to reward them. So the only thing I'm going to say is we have to happy that we are born Muslims and we are also God Iman. Anybody who got Iman is the one, if they call him, he comes. That is how Rasulullah said. If they call you, you have to accept the call. Then if you accept the call, then Allah subhanahu wa ta'ala will call Jibril and say, This is my lover. Because they call him in Islam and he comes. So I love him. Uh, Jibril, you have to love him too. And the Jibril will come and stand uh, and shout. The uh, first Sama, second Sama, third Sama, as seventh Sama. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala is love this, love this man. So you should also love him. And everybody who loves Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah. Then he is finished. Because Allah says, he, tell, he taught as in the song of Muhammad Rasulullah. He said, In kuntu tuhibbuna Allah, fatabi'uni yuhibbukum. That's how Muhammad Rasulullah said, and it's in Quran. He said, if you say you love Allah, and you want Allah to love you, so love me, and follow me, do what I say, and stop what I said, I, st- I, I stop you, and Allah will love you too. So may Almighty Allah love us. We, are we pray to Allah to love us and to give us, to make our foot steps in this thing Islam. And let us not die unless we are Muslims. And may Almighty Allah, before we die, He let us give us كلمة الشهادة لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم May Almighty Allah let us die with this. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Brother Imam Sani, you've said it all. May Allah reward you for the bit of words that you have just poured out here. Um, ci gàttal mbokk yi li mu doon wax dina ko tënk ci lu gaaw li doon jëkkaa wax dafa gërëm Moussa Konté ndax ñëpp xam nañ Moussa Konté ci liggéey bu muy liggéey ak dox bu muy dox ne dox bu mu dox rek doxi yàlla la di ko ñaanal yàlla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk ci gannaawam boot ko rogante ko ba xam ne lépp lu muy dox ci islaam yàlla mee ko ci ndam mu ñëw nag tamit di wax ci maanaam nit ki sa diine ba pare ñaanal julliti góor yi ak julliti jigéen yi ci lislaam wan ne yàlla buñ dee ci kaw te doonuñ jullit te mu fekk ñu tamit shahaada bi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نك تي خول بي بالا نكو غينا تي لامن دي تي سوكو غينا تي لامن بي تامن نكو تيري جيفو تيري ييغو تيري ييغو بي بار مو نيو نك دي واخ اك سوني بوكاي في علماء يي توك في تي لين يالا يالا يوك سن تخاواي مخاما لولا ني مونا واخ تي غاتا باسكو وقتو بي داف لولا دون واخ تي yéen mi nga xam ne àngale du seen làkk waaw noonu la ak ñi ci foraatu yi tamit loolu la doon wax ma tënk ko rek thank you very much imam Sané léegi duñ dem di xaaraantu lu dul ñu jël kàddu gi jox ko suñ mbokk bu baax suñ mbokk euh, suñuy xarit suñuy soppe suñu yeboo ñu ne suñu sëriñ yaa Cheikh Hassan Niass ñu ngi jël kaddu gi di la koy joxaat jox nañ la kaddu jël nañ micro bi joxoon la ko ñu koy delloowaat di la koy joxaat kontaan nañ te bëgg nañ ci loolu lool mu ngi nii bisimilah. الله قز الوجود وما هواء إن كنت مرتداء بلغ كمال فالغير دون الله إن حققته عدم على تفصيل والأجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محوي وفي مدلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجود لولا فوجود لولاه عين محال ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال وفي الماضي وفي استقبالي جمعت وجودا هيبة وجلالا وأفصلت من زاء بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم هذا المكارم والعلاء وما كالإمام الهاشمي قصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي حباك إله ما يقوت مخالا وأنت وحبت البيض والسود فانتهى إليك خاتم رام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي مني لي لدى اليوم رحب نوالا رأيت رسول الله جهرا ويقتتان بباري سهل ذاك المحل محل الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allah إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله تجلى لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله تراخي لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والعبد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والشكر لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله فناء لا إله إلا الله لله لا إله إلا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 إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رسول الإله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أورى فقيرا إلى الغير الإله تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول سمال قديم السوى بباب وهو مؤمل إجابا كريما وهو جرى طلأ تساغر عندي غير أحمد إنني أرجي من الهادي عبادي منال كريم السجايا واسع الجؤد ما طار لطيف كريم قد أجد مخلا فهبه على المقدار كفاك مصطفى برايا عطاء لا يخاف زوالا ففي كل حي قد قبضت بنعمة وإني كشاس قد أروم مناولها قدر ما شاء الله تكبير تكبير تكبير الله اكبر تسمعني لالنا خول ييب نك والله من خوما بو كينن واي من ييغال نما ساي بو كو دافي رك داف ييغال لول نك لا اله الا الله من لله كون يالا موم لب te ci lépp lépp ci moom lay dellu ñu ngi lay sant ñaas yàlla yokk sa fan def la kilifa def la mag yàlla yokk sa leer yàlla taxawu la sàmm la sutural la defal la jàmm ci barke Seydou Wujud kontaan nañ alhamdulillah defatuñ dara ñu ngi continuer di xuus ci guddi si duñ jël waxtu bi xol yëpp tooy nañ duñ defar dara lu dul pour ñu jox kenn ki nga xam ne moom mooy ndeyjoori sëriñ bi suñu yeboo ñu ne mooy beneen genn wàllam moom mooy ambassade am ci Europe ak ci tugal ak fépp duñ mën a wax lu bari ci moom ku oyof la ku baax la ku tabel la musuma gis loo xam ne ci kanamam lu ñagas la gannaaw bu ma ko xamee xanaa lenn rek saay bu nekk rek doom ndey doom ndey doom ndey moom ñëpp doom ndey am nañ waaw kon ñu ngi yóbbati di ko wax moom tamit doom ndey kàddu gaa ngi ni safal na saf rek ka asalaamaaleykum wa rahmatullah kii ngay bëgg a jox kàddu gi cër noo ko yar borom daara ja boogal defaraat na toogaaye ca boogal daara jaa nga boogal néegu yàlla yaa nga boogal jàkka jaa nga boogal jumaa jaa nga boogal cer nit yàlla la cer Abdourahmaan bari mi ci boogal man de sopp ko ndax ajab la si da baax Maalik moo boole Mamadou Lamine mi may woy borom jëg baaga saam borom suwaa ngi mi tu mën a war Moodu Lamin mi may woy Abdalaay la baayam tudd Abdalaay Abdu Mutalib ay baayam Xaasim Abdu Manaaf Xusay Kilaab Muratakab li woy Xaalib Tirmaari gag na dar Kinaanata Xusay Mata Mudrikataak Iliyaas Mudar Nizaar Mat Adanaan borom suwaa ngi mi tu mën a war Mamadou Lamine naka ne xaway xanaa xamoo moo gën géer ñi géer googoo gën géer ñi toog ndax li may géwal benn géer musu ko may géwal altina la juddu Mamadou Moustapha altina la juddu altina altina di ñaan ne makkatu mu karam utimi tu munawara Mamadou Lamine mi may way bàyyi Fatou bintu bi di Yàlla sóor laay moo waxoon màkk maa leen gën baay ñu weddi waaye ba ñu noddee Moustapha gën ci géeri géer ñi mu génn leen ree bu ma min mi may way xor si Malik borom parasor bi ci li mu wax Seydina Muhammad ca teer ga ca juddu ga ak dem ga miraas ga Cheikhul Khadim xoolal li mu wax Moustapha Baye Niass borom Medina Baye xoolal li mu wax Seydina Muhammad pap xanaa xamoo ku way nga Seydina Muhammad Mamadou Lamine moo jëkk a ñëw moo mujj a ñëw waaye moo gën Mamadou Lamine Moustapha aka ne xaway Mamadou Lamine kara ba mu nelawee Omar bu ba nga yëg ca fasul naaru góor way bajal naan ku ma tàggee Seydina Muhammad ma tàggee sa bopp ak sa yaram munu ko dalal ndax ku dem na to dootul ñëw Mamadou Lamine dem na te dootul ñëw damay barkeelu Thierno Rahman yàlla na fi yàgg ay eh, waay wax leen loolu Thierno Rahman bari yàlla na fi yàgg te wér dafa na duma yeeg jaara yi jibbinte nit ñu baree baree bari ñu dëngoon nitu yàlla la yàlla na ko sutural gën koo suturaal gën koo suturaal yàlla na ko fal cat mais ko fan gu dëgg wér gi yaram ngeen yàgg jiite sa digganteeg moom yàlla bu cat dina fi del suwat ci guddi gi barke aljam dess si da mbaax su fi del suwaté mbooloo mi dina ëpp parce que li nga ko def ci jom rek nga ko tek ak l'islam te lo bañ def fekk li ci dang koy bax man ki ma yar ko mu yar deug rek lay wax da nga yag ak cerno bëgg ko li ñi fi def yépp gannaaw cerno yar tax ñu def ko di nuyu ñu fi toog ak suñu walsel bi ñu àndal muy ajatu mam dramé ànd ak suñu rakk yu baax yéeg sama géer gu baax gi tabarkallah Fat Sidibé sa saw xam ni moom tabarkàlla ay maamam waa kër sëriñ Ndakaaru lañu yàgg nañoo jiite yu mel nii kon Pape sa diggante góor gi xool puso bu sew sax yàlla bu mu ci xaj yàlla nañu yàlla fal cet di nuyu si doom xadi aw sama doom la maa koy ziyaare di nuyu ñu fi nekk ñëpp waaw Medina Kër Baay loo fi ñaan mu nangu Medina Kër Baay loo fi ñaan day nangu tey ji macha allah affaire bi neex na ba pare su fi amoon sax mu doon noonu neex na ba pare waaye sant alhamdulillah waaye ñi yàlla boole ci lii rek ñoo ci mun a nekk ci jamono ju nekk nii waaye comme nit guddi gi xoj nañu ñu ngi jëlaat kàddu gi jox ko pap safal na saf asalaamaaleykum aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi maa leen di nuyu si nuyu gën a kawe gën a gën a tedd muy asalaamaaleykum wa rahmatullah man nag dama am problème tey bi ma xamee Thierno 95 95 ba léegi maa ngi soog a jël kàddu di wax ci moom kenn xamul ma ci kàddu jëf rek laa xam waaye nag dañ may may ma gàttal ko rek ndax xam naa sëñ bi bu gisee lii sax dina jaaxle tax papa ko jël kàddu mosul am. waaw ndax sama xol dafa gaaw a tooy moo tax nangul sax may jël kàddu mais damay sàkku ñaan rek si jarbaatam bi génn àdduna laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme nu ko waxee rek musuta jël kàddu te yàgg na ànd ak sëriñ bi ay ñaar fukki at ak lu ci weesu di dem waaw kon ñun xam nañ bi te yëg nañ fan la bëggoon a dem waa ñu mutali suñu xel ci lu mu a wax ne bu yàggut ci boggal dafa am xew-xew boo xam ne xew na fa ñu am ay mbokkam ay jarbaatam ay taalubeem ñu am sëriñ bi am naxar ñu ñëpp ñu am naxar ñu ñëpp ñu am tiis ñi nga am ne ay xale lañ woon di yëngu ci diine lislaam kenn xamul leen leen ci dara lu dul ci diine lislaam waaye yàlla mooy def li nga xam ne moo ko neex parce que moom natoom ci ko jam la xej la mëna wax parce que mu ne man dina len natu te xamna ne yéen di ngeen ko mëna a antan naka lañ ko mëna a moy mooy wat ca mom mom ñu ko tek way ci lim bu wax rek moy pour ñu ñaanal ñi nga xamne ne fi jitu dem yu sen borom don ligel sen serigne te sen serigne nekuton ken ku du di leena tab di leena tek tekal ci yoonu yalla parce que mom mo wax ne man ku man ma jeex fi nga xam ne foofu laa jeexe kooku jeex fi mu jeexee kon mu laay laaj yow fan nga jeexe waaw kon di waxtu bi xoj nañu li ñu war a def rek ñu ñaanal aju jiitu gi yàlla xare leen arjana yàlla oyofal suuf seen kaw te yàlla yàttal seen baamel yàlla fiñ dem yàlla buñ jaar ci bunti al ayin yàlla rombal leen buñ du jaar siraat sax yal na leen yàlla dugal ca biir arjana firdaws rasulullah di doon seen wéetalaay foofu lépp lu nga xamoon ne ñàkkoon nañ ko ci àdduna bii yàlla fayal leen ko foofu ci àdduna du judul jeex yàlla ñu yàlla tamit dugal tàbbi ñu ñun tamit ci àdduna yu suñ fi war a bàyyi tamit dem uyu ko tiis na métud la ñetti ndaw ñoo xam ne doxuñ seen jamono waaye yàlla jël leen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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي ñi bokk السلام عليكم ورحمه الله rahmatullah dañuy tàmbalee sun wax si di sant yàlla canteel gu amul àpp di jéggalu di jéggalaate di ñaan yàlla subhaanahu wa taala boole ñu jéggal di jiital suñ nuyoo si kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ñii ma bokk ak ñoom panel bi ñii toog janoo ak ñun di leen jégalu bu baax a baax a baax si yëkkati kàddu gi nga xam ne maa koy yëkkati kàddu ci seen kanam surtout sunu sëriñ bii di sëriñ Seex Ñas di sët rëkk si Seex Ibrahim Ñas yàlla waxoon nañu ci alxuraan ne laa tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabi bu ngeen di yëkkati seen baat mu gën a kawe baati yonent bi lim ñu bëggal foofu rek mooy fépp foo xam ne dajee nañ fa ak góor yàlla war nañoo mën a wàcce suñ bopp te xam ne ñooñu ñoo fa reppi seen yonent bi kon sering bi ñu ngi lay delo cër bobu tey jégalu ak bu baaxa baax tay nak dafa am lo xamné mom moñu fi dajalé te moy sante yalla subhanahu wa taala cantale ko kan te moy sun cheikh mu rabbi abdourahman bari mom mi nga xamné mom moñu jox ndigal ci bis bi di 19th day of Ramadan bile pour bu jotee ñu bokk santandoor yàlla sëriñ bi nag moom xamal nañu lan mooy sant yàlla ñu bari dañu yaakaar ne sant yàlla boo waxee alhamdulilah rek mat na waaw ci làmmiñ loolu sant la waaye sëriñ bi lim ñu xamal ne mooy sant mooy bi nga yëgee yàlla ci li nga xam ne moom la la yàlla subhanahu wa taala defal mu ne booba ngay doog sant yàlla feeg yëguloo yàlla ci li nga xam ne moom nga am feeg yëguloo yàlla ci nekkin wi nga xam ne moom nga nekk kon ba tey xamaguloo lan mooy sant yàlla kon nag sëriñ bi jañax ñu ci sant yàlla ak nan lañuy ñuy sante yàlla mu xamal ñu tamit li nga xam ne moom mooy sant ba tax na am nañ yëg-yëg bu wér ci bis bi nga xam ne moom moo ñu jox ndigal pour ñu di ko def di ci kontaan lool bi nga xamee ne yebal na kii nga xam ne comme ni ko Modou Mendy waxee Pape Safalka nga xam ne moom mooy ndeyjoori sëriñ bi foo ko gis rek gis fa sëriñ bi sëriñ bi mu ngi Gambia fi nekk nii moom mu waroon faa nekk waaye sëriñ bi yebal ko ci ay soxla bam fa bàyyi ko mu yebal ko pour ñëw bokk ak ñun programme bi kon nga xamne kon programme bi yitel na serigne bi lol pap safal kanak ñépp ragne nañ ko ci kër gi ci mbaxam tabeem ak yaatoom so gisé du wax lim ko fi waxé rek la serigne bi musula nangu pap yëkëti kaddu parce que bu yëkëté rek fay joy gis ngeen ko sax dafa nuyo rek wul sax tambali di joy ngir lan xolam gawa fess texte yi tamit ki nga xam ne moo génn àdduna nekkoon jarbaati sëriñ bi mu doonoon koo xam ne xaritam la woon soppeem la woon te itam Aliou ku demoon bëggal rek walla nga yàgg ak sëriñ bi rek xam nga ko te xam nga ni nga xam ne noonu la doon liggéeyee ci xadara bi kon génnam àdduna métti na taalibe yëpp ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla xaaree àjjana yal na yonent bi di wéttalam suuf sedd si kawam bi jaay nabil Moustapha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayta tamit di bëggaat rek pour su fekkee ne mën naa nekk ci diggante bi ñu defal paab safal kami benn special dog ñaanal ko ñaani xaas ngir rek mu mën a ànd ak sëriñ bi ñu continuer ba faw te ñun ñëpp sax ñaan gi dañ koy ñaanal suñu bopp ci waxtu wu nekk yal nañu yàlla booleeg sëriñ bi ñu ànd ak sëriñ bi ba faw waaye boo gisee ma juus ko ci moom dafa fekk mu nekk koo xam ne dafa sës sëriñ bi rëkk kooku dafa disaaf pour ñu ñaanal ko te itam buntu dafa doy waar kuy ñëw ci sëriñ bi di jaar si yow ku nekk mën naa ñëw moom li muy lu ne dana ko gis ci bunt boobu noonu su déggee ñu ne buntu bi waxuma sax nga taxaw ci bunt bi rek ku ñëw nga ubbi mu dugg waaye déedéet dafa am ay yeneen jaaruwaay yoo xam ne kuy ñëw ci sëriñ bi danga ko jaaree ci moom te itam foofu lu doy moo fa nekk am na nit ñu doy ñoo xam ne kanam gi ñuy wane ak nañ mel dafa wuute kon ñaañ ko ñaanal yàlla yàlla musal ko ci loolu waaye nag xolam moo koy aar mbir mi ci xol bi la rek Pape nekk na koo xam ne ku nekk la yéene jàmm tey tamit sëriñ bi daf ñu wax ne mbir mi mu ngi mel ni yow mi nga xam ne da jël toj laay rek niit ko ci seetu bi leer gi ci yow lay delluwaat Pape ka nag dafa yéene ñëpp jàmm ba képp ku ko yéene lu bon itam ci sa bopp lay delluwaat te sëriñ bi xam na ni nga xam ne noonu la Pape Kamel tey tamit du jóg mukk ci di ko ñaanal waaye moom ni nga xam ne noonu lay liggéey ak sëriñ bi ñun ñëpp ñu rafetlu ko kontaan lool war nañ ko cee defal ñaan itam yàlla jàppale ko taxawu ko sutura ko mu sax ànd ak sëriñ bi ba sëtaati sëtaatam ànd ak sëriñ bi bi jaay nabil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ am koo xam ne ku màgg la waxtu wi daanaka jot si mu nekk koo xam ne dafa am lum donn wala dañuy wax ne sax moom moo donn yonent bi muhammad salallahu alayhi wa sallam li ko firnde dafa am wax joo xam ne wax ju leer la moom sëriñ bi wax ko ci digganteem ak yonent bi muhammad salallahu alayhi wa sallam wax naa ko fii last year ma ne am na yenn wax yoo xam ne su fekkee ne jeexuloo ci yàlla doonuloo góor yàlla dëgg doo ko wax ci biir Sénégal fanaan fa ñeent fukki wala fanaan fa ñeenti fan li ma bëgg a indi foofu rek mooy sëriñ bi jeex gi nga xam ne moom la jeex ci yàlla ak fii nga xam ne foofu la toll ci yàlla ji bi waari daat yi di ko dikkal mu mën a toog nekkee loolu ba jël ko bind ko ci këyit ñu tasaare ko ñépp xam ne Cerno Abdourahmane Bari moo wax wax ji mu doon wax joo xam ne wax ju rëy la bay no mu ngi wax ne mu ne asre ma rasulillahi man may ki nga xam ne nii maa ngi dox ànd ak yonent bi mu ne bay cerno ne mu ngi dox ànd ak yonent bi huwa rafiqi fi zamani moom mooy suma àndandoor ci suma jamaano bay cerno ne àndandooram ci jamaanoom mooy yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bay cerno mu ne ana warisu sirri sirrihi mune man may ki nga xamne man ma donu mboti mboti yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam mune laysa bil adawati ci lu duhul ay jumtukaay mu ne laysa bil adawati su lu juhut ay jumtukaay if amil maani na nga fexe xam nak fi nga xamne fofu lay laay waxe mune huwa al habibu alhabibu yonent bi mom moy sopem anal wasiru te man maay ki nga xamne ni man may ndono mu ne huwa safiqu yowmal misaani ta mooy ki nga xam ne nii moom moo may ràmm ca bësëb natt ba mu ne yonent bi saa salaam moom moo koy ràmm foofu mu ne ana xalifatuhu bila sakkin te may xalifa yonent bi ci lu duhul sikk bàyyi cee wax loolu ne moom mooy xalifa yonent bi ci lu duhul mu noppee ci loolu nag mu ne ñu aduukum ila tawxid rabbaani maa ngi leen di oo nag ci wéetal borom bi ngeen gis kiñ am ni màggee maa ngi dox ànd ak yonent bi mooy suma àndandoor ci suma jamaano man may xalifaam ci lu duhut sikk waaw ba pare nag mu ne ñu maa leen di oo ci wéetal borom bi mu mel ni sëriñ bi dafa am loo xam ne nii moom la ñuy doyee niti yàlla niti yàlla liñ koy doyee mooy lan pour nga ànd ak moom mu jañax la nga jeex ci yàlla ba lépp loo yëg rek muy yàlla subhaanahu wataala tey ñu ngi doon waxtaan ci biir néeg bi ñu ngi fa wax wax ju mel noonu may wan ki ma doon waxal di ko wan ko su fekkee yaa ngi ànd ak nit yàlla li war a njëkk a jiitu mooy nga gëm ko gëm gu mat sëkk ba pare itam am cofeel gu mat sëkk ci moom waaye ñu bari dañu ànd ak nit yàlla ngir dégg nga rek ne sëriñ bi ñaanal na diw am na nangam ak nangam tax nga jug di ànd ak sëriñ bi mbir mi du foofu fi ngay ànd sëriñ bi mooy duhut ne daf la war a ñaanal ñaan bu nangu tax nga topp ko amal na looloon ci biir waaye war ngaa mën a ànd ak sëriñ bi jeex ci moom takk ba boo bëggoon mbir ñaan lu loola fekkul loola ñëw nekk sax du tere di nga ànd ak sëriñ bi ngir lan jañax la la ci yàlla ji ba lépp looy yëg muy yàlla subhanahu wa taala te loolu mooy mbir mi Baye dafa am benn jëmi jamaano may dégg waxtaanam mu di ko wax sa ibrahim Niass mu ne dafa am benn jëmmi jamaano mu gis ne lépp lu mu ñaan yàlla rek dafay jeex mu dellu soxlawaat su fekkee ay soxna la danañ dem bàyyi la fi wala nga dem bàyyi leen fi bu fekkee ay doom la noonu bu fekkee alali àdduna noonu mu ne yàll nañu yàlla may yàlla suñ amee yàlla rek am nañ lépp sëriñ bi nag foofu lañuy ñuy joñox moo tax mu ne ñu aduukum ila tawxid rabbaani maa ngi leen di oo pour ngeen wéetal borom bi nañ wéetal borom bi jeex ci borom bi tàkk ba lépp lu ñuy yëg mu doon yàlla subhanahu wa taala su boobaa dootuñu soxorati su boobaa dootuñu añaanati su boobaa dootuñu buggeeti ngir góori yàlla bi setal nañu ba nga xam ne yëgatuñ lenn lu dul yàlla subhanahu wa su boobaa la cofeel gi di door a dëggu ci ñun nag ñu mën a gëm ànd ci fi yàlla waxee ne wax waxtasimoo bi ablillahi jameen wala tafarraqu ngoyaanu leen ci buumi yàlla gi te bu ngeen teqalikoo yéen ci Musaa ba muy wootee dafa ne woon kenn si yéen du gëm li dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam waaye loolu nag gëm gu mat sëkk jeex ci yàlla takk ragal yàlla moom mooy tax ba nga xam ne lépp loo bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk bi ma waxtaanee ak Baye Cerno ci hadis bi Baye Cerno mu ne ma man hadis bi ni ma ko déggee mooy njëkk la bëggal sa mbokk mbaax bala nga koo bëggal sa bopp nga xam ne kooku ku baax la benn jëmi jamaano dañu toog bëggal ci taax bi mu am kenn koo xam ne dañ doon wax ne nooni Baye Cerno la wallahi kooka kilifa la waaye mu am benn problème ci biir njaboot ji rek ba loxoom damm bi mu ko defee mu am taaliba yu ñu kontaan ci mbir moomu noonu di jël information bi di ko jox sëriñ bi di wax maa ngi toog ak moom daf ko bañ ba keroog daf ne teg leen téléphone bi bëggumaa jël téléphone fi mu nekk mu ne ma gis nga nit ñi am na ñoo xam ne ñu ngi kontaan sax si li nga xam ne moo dal waa ji waaye man mu ngi mel ni suma loxo moo damm ma kon xam nga kooku dafa am loo xam ne moom la ñuy jàngal doone taalube sëriñ bi nga bëgg nga sëriñ bi jeex nga ci sëriñ bi takk ba pare ngay am xalaat bu ñaaw di ko yéene jëmale ko ci sa beneen mbokki taalube wa bi yi bay na ko wa sa la ñuy wax na ngeen def jàmmoo ci seen diggante te saraxe kasa salaatil fatiha al fadala ngeen jàpp ci salaatul faate bi nga xam ne moo gën a gaaw pour yeggee nit ki ci boromam mu ñëwaat nañu wa bil mahabbati wa tarki xiiba islaahi saati bayni tarki saxna mu ne na ngeen bëggante te bàyyi rambaaj bàyyi ca ñu ko moo ko bind fii si alruxyatu wa nasiha bi wa bil mahabbati wa tark xiiba na ngeen bëggante waaw wallahi sëriñ bi boo gisee mu naan ñu daayira xam nga li tax mu naan ñu daayira pour ñu xamante bu ñu yàggee di dajee ci daayira bi rek danañ xamante te bu ñu yàggee di dajee rek bu ñu xamantee rek danañ bëggante te bu ñu bëggantee rek danañ dimbalante loolu moo dëkk bu nekk bu yeboo ñu am fa juróom fukki daayira waaye nañ fexe ba ñun ñëpp suñ xol yi ànd nekk benn liggéey ci Cerno Abdourahmane Bari suñ ko defee rek ñun ñëpp danañ bokk am jàmm waaye feeg ñu ngi ŋàññi xante di xasante diw du taalibe diw gëmul nangaw nangam nangam nangam nangam dañuy wàññeeku te du yokk mukk te sëriñ bi du jug si yokk mukk si yokk rek lay nekk kon nag nit ki war naa xam boppam war a xam topp alquran dafa wax ne balil insano ala nafsi basira nit moom moo gën a xam boppam kon na ku nekk seetali boppam bala ngaa joxoñ benn baaraam ñetti baaraam yi del ci si yow seetlu xaatal sa bopp bu baax a baax ndax li ngay jiiñ nit kooka mu ngi ci yow wala nekku ci yow bu fekkee mu ngi ci yow nga fexe noo settalee sa bopp wa bil mahabbati wa tarki xiiba la ñu sëriñ bi wax na ngeen bëggante te bàyyi rambaaj bi nekk si suñ biir feet ñu ngi rambaaj rek wallahi duñ am jàmm feeg ñu ngi jaxase di wax loo xam ne dafay yàq wallahi duñ am jàmm kon nañ moytu loolu islaahi saati bay ni tarki sax naa waaw ngeen settali seen diggante te bàyyi noonoo bi loolu lañu sëriñ bi wax suñ defee loolu dañuy am jàmm ku mel nii ci góori yàlla nga am ko ci sëriñ ci jamono biñ toll nii te bëggul lenn benn jamono dafa ñëw Sweden bi mu ñëwee Sweden ñu war a dem Finland ñu wax ko ko ñu waaj ak moom ba waxtu wi jot mu ne ñu ah jox naa leen digal pour ngeen dem man ma toog xaar leen ñu bàyyi ko fa dem groupe lañ àndoon biñ eggee Finland ñu teral ñu fa ñu nekk fa waaye keroog bi nga xam biñ fa eggee sëriñ bi woo ñu ci téléphone wala ñu oo ko ci téléphone muy wax ak ñun di ñu digal li ma jàpp ca lam ñu digal daf ñu wan rek ne gis ngeen ma man fi ma toll nee ci waxtu ci jamono jii ni nga xamee ne noonu laa bëree itte ni nga xamee ne noonu la ma nit ñi di wëree. ak fu ma nekk nit ñi ñëwal ma fa ma bàyyi Sénégal ak la ma fa am yëpp ci ay taalibe ñëwal leen xam nga li nga xam ne moom laa soxla ci yéen muy ak pay mooy lan mooy ngeen ànd nekk benn waaye du len jugam yépp pour ñëw fii seetali xol yi gis ñu ñu ànd nekk benn wa atiu llaha wa rasulahu la ñu alquran wax na topp yàlla ak yonent bi wala tanazau bu ngeen bu ngeen xaajaloo mu ngeen mu ne su ngeen ko defee rek fa tafsaloo di ngeen féel li ngeen bëgg du ngeen ko am wa yi rixakum ba pare seen kattan dina dem wasbiru na ngeen muñ inna allaha maa sabirin ànd neexut fokk ñu muñalante ki jiitu fokk mu nangul ñi nga xam ne ñoom la jiitu ihanatul kabiri lil saxiri wal xusni fil jawaabi lil kabiri léegi ñu ne waxtu wi jot na waaw mbokk yi ñu ñëpp ko déggandoor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 la ilaha illallah la la ilaha illallah la la ilaha illallah la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 الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله شكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله لا وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى كادو غانغوك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله waaleykum asalaam wa rahmatullah taala wa barakatuhu Seydi Ka borom jotaay bi sa taalibe bi mu ne su muy wax nga déglu ko incha allah dina ko ñaan naka noonu ñu ngi wax ne ñu ngi sant yàlla di julli si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di jégalu suñu mbokk yi waaye xam naa ne su ma leen jégalu tamit mu ngi rafet ndax li tax ma sañ naa téye ñoom itam liggéey bi moo tax te loolu mooy seen dund waaye maa ngi nuyu ñëpp góor a jigéen mag a du bugg a wax moo tax ñu jël maaj bi déedéet bugg a feeñal canta tuuti rek waaye bëggee suñu eh, mbokk yi tamit di Ababacar ak ñi mu àndal eh, def ko muy sant yàlla waaye wax dëgg yàlla bëggee képp koo xam ne yaa fi nga xam ne ñu fii moom ñu fi daje yëpp yàlla kese moo leen fi indi du leen ndax fekkee ne tàmbalee nañ ko ñu man ñu ne Moussa lu ma leen mën a jox lu gaay amut ak lu ñu xamut déedéet dee romba noonu rek di dem rek ba delluwaat si borom bi li nga xam ne moo yëngal ñëpp insha allah waaye di bëgg rek di wax ne Ababacar kaadu bi mun na nuru kaadu boo xam ne dafa fulis waaye déedéet pour bugga nga xam rek nuñ la fulale waaye du tey fulal bi yàgg na ndax jullit boo jàppee nit si mbaax benn mbaax boobu rek dafa war a doy nga aatee ko aduna ak alaaxira daa iman te xol bu fekkee ne ñu ne benn la rek alhamdulilah da nga ko dee wax it yooyu it gisee du mun a ñàkk daay man seen gise dee sax alhamdulilah te am na ñu koy jëmal sa mbokk mi di Mouhamed Lamine Jiba ci la bokk te rek maa ngay wax rakaam man a ko ne fu ma munta nekk yaa ngi may pikir pikir bu si jublu mooy toujours mu ngi may jokk ci média bi naka moom it noonu la mel te am kii tamit benn ngeen alhamdulilah te suñu sañoon ak lu ñu sopp la sa lu ñu bugg la soo fi ñëwoon ñu jox la mic bi ñu ne la téyel et yaa ko moom waaye yàlla dogalut loolu moo tax bugguñ laa bàyyi nga demee noonu lu important la waaw lu am solo la su la yëgee da ngaa fexe yow nga xam ne e nga feeñal mu xam ne danga nga ko yëg ak ñi nga àndal ñu bégoon bu ngeen dajee ak mag bi bi la feer tamit si jotaay bi ma gis dal bi ma gis ne mbir mi yàlla la ñu kontaan wax dëgg yàlla ñu kontaan di ko wax ne Eh, diggante bi du tey bu mu sosee du tey waaye yàlla moom mi ne o maata saawoona illa an yasha allah jeex na mooy olbati jaam bi nu mu ko neexee kon sant la waaye yooyu ñu ngi lay wax ne alhamdulillah bi nga dajee ñoom ba lii am waaye tabaarakallah sante nañ ko yàlla lii moo tax ma téye leen nag waaye di ko ñaan yàlla mu yëg ñu si sant bi nga xam ne moom la àdduna taxawee mu nekk njëriñ boo xam ne dana pour suñu diggante incha allah waaw di sant benn soxna bi nga xam ne ñoo koon na fi ñu ko eh, defe na adama suma jumut moo toog ni mu naan man ndànka ndànka ndànka rek ma ne ko ne waaw lu olof bi wax la ñu ne tox tox moo gën yuréet waaye ñun dañuy ñaan yàlla mbooloo bi ak nu mu mun tamit na nekk mboolooy xaq nit bu ñëwee mu yëg ci yàlla ndax mbooloo nu mu réeree bu yàlla feeñul rek am njëriñ waaye benn nit ku yëg yàlla ci biir mbir mi rek sant yàlla Eh, ñu ngi rafetlu yéen a ngi bokk ci siimaahum fi wujudihim min asari sujud ñi nga xam ne bu leen buñ leen gisee rek ñu fàttali nit ñi yàlla ñu ngi koy yaakaar bu a baax a baax eh, loolu nekk na sant yàlla eh, maa ngi kontaan ci imaam ak wan wax dëgg yàlla ñu wax yëpp leneen taxul ñu wax lu dul ne bégal xoli nit ñi te xol bii bég ci géewu yàlla mooy xol bii dellu ci yàlla mbégte boobu ci yàlla lañ ko soxla du ci leneen waaw du ci ci tajaliyaat bi na rooma foofu dem ci gannaawam dellu ci yàlla waaw waaye boo gisee ma tudd ñeneen nii rek macha allah sant yàlla la ndax bu ñu ñëwee dajee rek dañu war a wax li tax a jóg nit ndax du lekk bi du naan bi du colu bi du lenn waaye xol dellu ci yàlla loolu moo waral jotaay bi moo tax ñu tudd ñi nga xam ne tudd nañ leen ndax wax seen wax yi macha allah jotale na di di suñu yaay bi nga xam ne jël na bi jaadu na ndax mu ngi doon woy eh, mun na ko gisee police waaye is na maa ngi koy aate si jëflante moom Thierno nga xam ne góori yàlla yi dañuy xool nit ki ci bépp anam mun nañ laa xoolee nga ñëw ñu wax wax boo xam ne sa nekkut pour xool sa jikko ndax yow da ngay àndaa ñoom ci dëgg wala déedéet ndax di nga leen ñemeña di nga leen ñemeñoo wax dëgg wala déet support leen ci loo xam ne du dëgg wala déet dinañ la indi loo xam ne nekkut ñu ooyee ko du dëgg pour xool fan leen di tontee te loolu sëriñ bi feeñal na loolu ci moom àndaam ak daje ak moom bu ko indilee loo xam ne dundul ko xamu ko ak loo lu mu toll ci yàlla daf ko wax ne déedéet du noonu kon kooku eh, su waxee ci mbooloo dañu war a xam ne yàlla moo yàlla tax mu wax waaye du leneen kon suñu yaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant waaye di ko teg ci loxo Mama Dramé incha allah eh, bon sant nañ gërëm nañ la. la ilaha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 ليلى ليلى لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا لا لا إله إلا أنا لا إله إلا لا لا إله إلا لا أولاد إلا لا لا كراه إلا لا زهرا إلا لا باتنا إلا لا إله إلا الله La ina, illallah la, la illallah la ina, illallah ina, la ina la, la ina la, la si si si ina <clears throat> la, balu ina la, wahdun ina la, la ina bi mu commencé ci Zaire te amoon fu mu dooree ci baatin bi ñu yàlla boolee ci yoon bi nga xam ne su ma ñëwaatee fii tey dama gën a bëgg comme ni ma ko dee waxee rek àndoo ci yaar rek moo am solo mooy ni ko daan waxee Sweden jamono yooyu di ndokkeel suma boppa lii suma bés la ngir yoon biñ jaar ci Zaire ku ñëw fii tey rek di nga yàlla bu baax xam ne yoon bi ñi ko commencé ak ñi ko een mun nañoo ute waaye commencé rek moom moo am solo dëgg-dëgg maa ngi fàttaliku thirteen years ago maa ngi fàttaliku lu àgga fuka ak ñett at ci gannaaw wala lu uppa loolu ñu bari mun nañ maa sedd yéen a ngi jëlee Baye Tuuti Ñas dem si yàlla Baye Tuuti Ñas itali waaw mooy bi Thierno di wax ne képp fii laa xamee képp ko xam ne yaa ngi ànd ak man ngir yàlla tax ngeen jógee yoon bu sori boobu jamono boobu mun naa am tey jàmmani fii sax daayira yu bari tey amutoon ku fekkee démba rek xam tey soo waxee ku xam démba dina xam ne noonu dafa taajoo woon waaye biri mel na yàlla dogaloon ñu defee woon ko ndeysaan bàyyi du di dem si yàlla soosu bés boobu sëñ bi sanga bi dafa dafa kool ñu jël micro bi di déglu moo tabe ñu ngi sant tamit yàlla bu baax ma fàttaliku beneen at bi tam ñu daje woon France ma mus Mouhamed kamara bi fajar boobu ñoo ko sikar di raxas bool yi ak xaal bu tànga dëggu rek am solo waaw déggu am solo yal na yàlla may déggu jarul taalibe yu bëri waaye nañ am ñaar ñu déggu ba ñetta bu déggu rek mun nañoo def xiiwal ngir tey fii ñi fi malayka yi fi feeñ tey ñoo wuppa jëmi ñit ñi fi wuppa tey ngir dëggu ñu nge compter ku nekk rek lu uppa ñeneen fukki nit ngir seen dëggu la ñoo xool moom moo tax bi dëggu bi rek am solo daal mbiri sëriñ bi nag comme ni ko rek du ne kum neex rek moo ci dugg yàlla mooy tànn ku ko neex waaye ndeysaan mooy li ma di nekk rek benn kaadoom rek moom laa di wax moom la tojee xol yi àndoo te sellal téye ci buumab yàlla gi te loolu rek la saa yu nekk rek ñu téye ci buum boobu nag moo ñu lëkkalante ñun ñëpp ba tey nii moo tax ba ñu ngi gën a ñaax suñu boppa si loolu lañ nekka lañ nekka ci li nga naa yëngatu la ñoo yëngatu mooy ni ko sama sëriñ waxee suñ dajee rek li ma bëggal sama bopp la nga bëggal sa bopp su si ma jeex nga jeex si si li nga bàyyi lay bàyyi si li nga téye lay téye te loolu rek moom mooy àndoo bi daal ñun see bëgg daal bu baax a baax di gën a encourage suñu lii yan na yàlla gën di gën a saxaal di gën a bëri musaa tamit ñu ngi koo bëggee bu baax a baax a baax loolu moo ñu boole si buum boobu la ñu yàlla ba ndeysaan baytuti boobu dem na bañu fi ci baatin ci zaahir waaye ci baatin mu ngi ñun ba tey bon moom it ñu ngi koo ñaanal maa ngi fàttaliku jamono boobu ndeysaan yoon bu sori ngeen kotaat jaaree Francfort ñëw <laughs> waaye yan na yàlla saxal yan na yàlla barkeel ñu ngi bég di jégalu si kaddu yi comme niñ ko waxee rek ñu tam duñ ñitti kaddu waaye nag sante ko yaa rek la maa ñi ma àndal ak mboor mbokk ñoom ñëpp suma xarit ndeysaan suma waay gis nga de waaye dajewaat nañ ci yàlla <laughs> di gërëm daal ñëpp daal di leen saaku ñaan di leen ñaanal di ñaanal tamit ñëpp ku pokk jóge fu sori rek yan na yàlla delloole ko ak ak xol bu fees teb ak bay cerno waaw ak ak jëma ju feesaa teb ci tajaliyaati sëriñ bi waa nam ko ñaane woon nam ko ñaane ci suufi Gambie yan na loolu tasaaroo ci àddina si yëpp waaye ñi ñëw ak ñi munta ñëw yan na ñi munta ñëw sax uppale ci xiiwal gi yal na ko yàlla def muy xiiwal ci biir du em ci biir men rek waaye mu tasaaroo ci àddina si yëpp ndig ndeysaan yërmaange rek la àddina si soxla te ku bëri yërmaange la moo tabe ba bëri waay boobu noonu yal nañ ko yàlla bari lee mais ñu tamit déggu mais ñu tamit takku mais ñu tamit façon ba lépp lu ñoo def rek incha allah moo sotti si jàmm ñu ngi jégalu si kaddu yu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ala

ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا أول ألا ألا ألا ألا آخر ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ظاهر ألا ألا ألا ألا باطن ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا

ألا ألا ألا ألا ألا أول ألا ألا آخر ألا ألا ظاهر ألا ألا باطن ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا أول ألا ألا آخر ألا ألا ظاهر ألا ألا باطن ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا على على على على على على على على على على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

la la la la la la la la la la la la la dược liền mà gal cherno bơ gal la la dược liền mà gal cherno bơ gal la la dược liền mà gal cherno bơ gal la la dược liền mà gal cherno bơ gal la la dược liền mà gal cherno bơ gal la Allah dựng lên ma ga chân nô bơ ga la la la dựng lên ma ga chân nô bơ ga la la la ava lo à mô ni bơ ga la la ki ro mô ni bơ ga la la la ro mô ni bơ ga la sa ma do mô ni bơ ga la ya la ya la ho la la dựng lên ma ga chân nô bơ ga la لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله زغري لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا إله إلا الله أنا أنا لا الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, la ilallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah. ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا الله لا لا لا إله إلا الله ألا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آتم لما سبقنا سراق بالحق ولا إلى سراتك مستقيم ولا آل يا كريم الدار العظيم اللهم صل على لما أولق والقاتم لما سبق الناس الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا عالي كريم دار العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما ناصر الحق بالحق ولا دي إلى صراطك المستقيم ولا آل كريم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله